الحمد وشكري مع الكل بيسارا لو إذن دون سقط عند سرسارا عبد وشكري مع الكل بيسارا لو إذن دون سقط عند سرسارا لو سناي وردوان بلا سقط مسقط لي من بني بيمان أنصارا عبدي وزور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 ngeen ñii àddu ngeen di teewlu moo di Sarsara Sarsara mooy pàkk bi nga xam ne Sarsara mooy pàkk bi nga xam ne fii la Serigne Touba nekkoon ci gànnaar di pàkk boo xam ne ku ne xam ne ne mag ñi yàgg nañ fee laxas Sénégal di fekk Serigne Touba mu nekkoon place boo xam ne place su yorekaay la place jàngale la place su la place su yàlla la Serigne bi nekkoon fii ci Sarsara taalib yi def at mu jot nag ñu nemmi ko si jéegoy Serigne bi waaye jéegoy mag ñu baax ñi daan fekk Serigne bi. ngir di barkeelu ci moom ndax albarakatu lil mutabarikin loolu moo tax soxna maam Issa Mbacke at mu jot mu lëkkale fédération ahlu café bi ak mbooloo mu takkoo takku ànd ak ñoom ñëw ci pàkk bu barkeel bii di Sarsara Sarsara nag bari na ay mbir yu ci am waaye loolu ki ñu ci àndal mu gën ñu ci dikkal ak leeral mooy Cheikh Abdoulaye Dieye mi nga xam ne mooy yor kàddu soxna si kon bokki taalibe yi ni ñuy def rek mooy dañuy àndandoo ñun ñëpp teewlu Serigne Abdoul Ahad Dieye su ko defee mu leeral ñu fii ñu nekk mooy fan ak kan moo fi nekkoon ñen ñoo ko doon fekk luñ fi doon wut yëpp dana leer ci ñab laat ji incha allahu taala ñu maas ci sax bilaat asubillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin salaatu wasalaam ala rasulillah inna alladina ila sarsara xat xazadu ziyarati faaraxu daarayni aw saara bokki jullit yi ñuy déglu te di ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu baax te di leen ziyaara di jiital ci suñu nuyoo ak sunu ziyaara ñaanal cheikh mahamadul muntaxa ibnu cheikh mahamadul bachir xalif général suñu borom yàggal lool te may di ko ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall. di nuyoo ak ziyaara ci turu soxna maam Issa Mbacke bint Serigne Modou Fati Xari ibnu ma Mazamba ñu gën koo xam ci soxna maam Issa ahlu café di nuyoo itam ci turu mbooleem mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo bàyyi ko Sénégal eh, ak ñi ñu fekk si fii ci Nouakchott di sant yàlla bu baax moom mi nga xam ne moo nu may at yi weesu yëpp ñuy teew fii ci Sarsara mayaat ñu ren tam ñu teewaat fii ah, fi la ñu nekk nag moom la ñuy tuddee kër sëñ bi maanaam bi Serigne Touba nekkee Sarsara fii moo nekkoon këram ndax xam ngeen ne eh, doomu aadama eh, suñ boroom daf ko yaatalal kow suuf eh, muy moomeelu suñ boroom moo tax fu ab jaam nekk rek ardullahi waa champ suuf si yàlla yaatu na ci yow moo tax sëriñ bi bi mu ñëwee fii fii da def këram ah kër nag xam nañ li muy tekki ndax mooy fi nit ki sax e, donte nag e, sëriñ bi moom e, ay déplacement dafa bari lool waaye déplacement yooyu yëpp ci ndigalal boromam la waaye fii mooy barab bi nga xam ne moom fi la daan sax nga xam ne fi lay nekk su waxtu julli jotee nag xam nga ne moom fu mu nekk tam dafay naal jàkka naaloon na jàkka ci wet gi bu waxtu julli jotee mu dem ci jàkka ji julli dellu si ci kër gi ba waxtu julli jotaat mu delluwaat ci jàkka ja di baagante diggante jàkka ji ak kër gi am na tam fu mu daan roote eh, muy siyaan ga nga xam ne fa la daan kocca ndox mi nga xam ne moom la daan eh, jëfandikoo am na tam fu mu daan nekk ak mag ñi kon ñeenti barab la waaye barab bi ñu nekk moom mooy kër gi eh, mag ñi nag moom gànnaar rek lañ ko daan fekk waaye nag sëriñ bi moo daan déplacé ak ñoom ci ay barab di dem ci barab buñ ko fekkee fii itam fu jëm ñoom ñëpp dañuy ànd ak moom ndax ñoom fu mu jëm rek ku am digalal ànd ak moom rek da ngay ànd ak moom waaye fii nag mooy barab bi nga xam ne fi la saxoon nga xam ne barab bii liñ ci mën a jëlee ci taarix mooy mille 2002 bokki taalibe yi nga xam ne ñoo fi njëkk ñëw ñëw jóge Nouakchott ànd ay kilifa yoo xam ne Serigne Salim Mbacké moo leen yebal ci barab bi bi nu ñëwee ba fekk fi jeexiti lu mel ni ay tojiti ndaa nettali nañ ma ko ak yu na mel yoo xam daal day wane ne fii jëmm ji mi ngi fi woon jëmmi Serigne bi ngi fi woon. wax nañ ne tam bokki taalibe yi ci seenu pësteef ak dañ kumpa mbirum Serigne bi bëgg cee am dara ci ay jeexit am na ñoo xam ne sax yoroon nañ ay peel di wàqe barab bi am na ku ñuy wax sa Bara bokkoon na ci moo doon def san sëñ ma sàmba gi bërki démb ci àllarba ji sëñ sa Bara Fall moomu nee na bokkoon na ci tawféex ya nga xam ne euh, jële woon nañ ko ci wàq gi ñu doon wàq gi nee na mooy ñetti gaal yoo xam ne euh, génnee nañ ko ci suuf si mu mel ni kon sëriñ bi da ko fee suul euh, gaal ya nag am na ay jeexit yu ñu ca gis yoo xam ne ñenn ñi wax nañ ne ay téere la gën a niru waaye li ci gën a yéeme daal te nga xam ne moom a ci gën a yéem mooy fekk nañ ci ay kaasi huit yoo xam ne yàquwut moom ay kaasi kaasi kaasi ataaya kaasi ataaya yoo xamante ne bi kaasi ataaya yi moom yàquwut gaal yooy nag dañ koo jël dem yottu ko sëñ Saalix wax dëgg yàlla fu mu mujj nag moom xaw ko waaye yóbbu nañ ko ba ci sëriñ bi moom yóbbu nañ ko moom ba ci wane daal fii moo bi kon loolu moom mooy wane ne fii moo nekk barab bi moo tax ñu ne ginnaaw fii mooy kër sëriñ bi mhm. te yàlla dafa sakkal sëriñ Touba ay kër wa jammilan daariya inda Touba waa ayya duuriya asaaya Touba daf ko ñaanoon boromam yow yàlla mhm. na taaral sama kër yi ci àddina yëpp te nga taaral sama kër yi ci e, Touba mhm. fii nag ci këri sëriñ bi la e, li wane na taar bi tam mooy xayma yii ñu fi def xam nga ne àll bi yëpp e, barab bi rek moo ko fi jagoo kon lim tollool ci ab taar suñ borom defal na ko fi mooy ay xayma yu mucc ayib ndax ginnaaw nekkul barab boo xam dañ fee dëkk sax fi at mu nekk dañ fiy ñëw benn yoon te yàlla ñaanoon na Serigne Touba loola bokki taalibe yi tam buñ fi ñëwee jëmmi murit yi fi nekk ak xayma yi ñu fi def loolu mooy taaral barab bi mooy ñaanu Serigne Touba googu Serigne bi ñaanoon kon fii mooy kër gi nga xam ne fii la Serigne bi nekkoon mag ñi moom bu ñu mësaa ñëw nag moom Sarsara ñëw bu ñu demee ci yeneen bu nekk danañ leeral lañ fa xam ci gëstu yi nga xam ne def nañ ko ci bu tedd bi sëñ Mortalla barakallaahu barakallaahu Cheikh Abdou Lahad Dieye ci leeral yu am solo yooyu mu ñu leeral ci kër gi nga xam ne fi la Seexul Xadim nekkoon bi mu nekkee fii ci Sarsara bu nu fi bàyyikoo nag noonu mu ko waxee ci ñetti barab yi ci des barab bu ci nekk bu nu fa àggee Cheikh Abdou Lahad ñu leeral lan moo fa am ak nan la fa sëriñ bi daan nekkee ak yéen waxtu la fa daan ñëw fii nag pàkk barkeel la te albarakatul mutabaarakin moo tax yéen ñi nga xam ne yéen ñu topp seen télévision yi ak seen site internet yi te kenn ku ci nekk di bàyyi xel barab bi ndax albarakatu lil mutabarikin di ko barkeeloo yàlla nekk gën ji pay ci daraja lislaam barke Seexul Xadim kon sama caméraman yi da ngeen may topp nu ànd ak yéen ci yeneen barab yi fasanti ko yi nekk ci biir Sarsara décorté ko bokk taalib jëlal ko bokk taalib yi ngir sottiwaat ko askan wi nga xam ne ñooy bàyyi xel jam jotaay bi nga xam ne moo di Sarsara wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala luuri dundunu sux tinda sarsara luusana i wardi bani bilasixatin musaadili min bani daymanan sara lillahi kulla da abari makrumatan lillahi lillahi lillahi لله كل داء أبار مكرمة قد سألنه في أجم من سارا ok mbokk yi ni ma leen ko waxee rek xam ngeen ne soxna maam Issa Mbacké njiitul fédération Ahlou Café fu mu dem ànd ak daayira Ahlou Café waaye ku tudd daayira Ahlou Café wala tudd kafe gi café gi nag ñi ngi seer baax jëriñ daam jaam daam café dëkk Touba waaye xam ngeen ne daayira wala xad karam naa bi nekk Sarsara ñu ko wax daayira wala xad karam naa bi nu gisee doxeenu soxna si ñoom it daf leen a marqué ndax liggéey Serigne Touba rek ka leen ñor te seen tasamaan jarul boxante fu waay taxaw ma nga moo tax bi nu gisee soxna si mu am taxawaay bu rafet ci liggéey lislaam rawat ne fii di Sarsara ñu lëkkaloo ak moom léegi seen tur daayira woo gën a yokk ñu koy wax daayira euh, wala xad karam naa Sarsara ahlu café ci seen jàmbaar seen pastef bi ñu dikkee nag fekk leen fii ñu ànd soxna si ci Sarsara gis nga ñoom li nu baaxoo def rek dem daal di commencé taal di jox nit ñi ay xéewal moo tax damay jox kàddu gi jëriñ Malick mu leeralal ñu tolluwaay bi nga xam ne am nañ ko fii ci Sarsara waaye naka lañ ko waajalee fii ci Sarsara bisimilah bisimilah bisimilah rahim bisimilah rahmaani rahim barke borom Tuubaa bokk jullit yi bokk taalibe bi leen siyaar bu baax a baax maanaam te rafetlu liggéey bi te di leen ndokkel bu baax ci bis bu màgg bi nekk mooy siyaar Sarsara xam ni maanaam tawfeex la bu rëy rëy rëy rëy ginnaaw ba maanaam dund ba dee te nekk ci gànnaar ñëw Sarsara defar la kon maam bu suñu borom yàlla dimbalee ñu ne fi ci dëkk bi màgg gi fekk nu fi maam yàlla na ñu ñëw fi taas ci barke sëriñ bi mbokk taalibe yi jógee Sénégal maam ñëw fi xamante ni maam ñu leen fekk si maam di suñu mbokki bopp di suñuy gan ñooñu li yàlla si ñoom moo ñu taxawu leen bi biir ak biti maam loolu moo waral ñu def lii fépp fu ñu dem rek maanaam jëmmal fa baas jëmmal fa kin di ko ànd ak waa ëllu café sëñ Mor waaw ñu ngi am mbégte bu baax a baax ci jotaay bi wax dëgg yàlla am na solo mm-hmm. comme ni ko jëriñ Malick waxee rek. Mm-hmm. koy mm-hmm. taxawoo at ak moom ba nëgë ni gis nañ ak a baax a baax yaakaar naa daaw jéeg lañ ko commencé ànd ak moom. ji muy ñetti at. boobaak nëgë ni gis nañ ak yokkute bu baax a baax xanaa loolu dañ koy ñaanal suñu borom guddal aw fanam may ko ak wér ba liggéey bi fu mu bëgg mu àgg fa rek suñu borom kattanal ko ba mu àgg fa ndax am na ci yéen ci sarsaara lool kenn ku nekk gis na ab taxawaayam ci sarsaara ak niñ ciy liggéeyee muy liggéey bi am solo lool kon loolu dañ koy ñaanal suñu borom kattanal ko ba lépp mu mën koo àggale comme ni mu ko bëggee ak fi mu bëgg yaa ngi jóge Sénégal ñëw fii ci gànnaar di fi daan sa doole te bi fi ñëwee dañu fee dajo dajaloo takk nekk wenn say ngir liggéey Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci lépp lu mu a doon muy café gi comme ni ko soxna si doxee ci Touba mhm. rek dañ mhm. loolu lañ koy seeral bokki taal mhm. bi a nga xam ne fii bi Serigne Touba di ñëw wute na ak tey jii mënoon lenn moo fi nekk loo xam ne ay garab rek nga fi gis kon fii da xam ne moom ay tawfeex la daal. Hmm. tawfeex la gu yaatoo yaatoo yaatoo. jërëjëf jëf jëwriñ Modou Badiane jërëjëf mbokki taalib yi nga xam ne yéen ngi topp euh, mu mel ne kon fii mooy Sarsara li ma dégg yenn kilifa gu mag Serigne Modou Mbaye Samb di wax naan tubaab benn tooñ ñu ne ko lu tax mu ne bi mu yóbbu Serigne Touba ci géej gi daa waroon boole Serigne sépp dugal leen ci biir gaal gi di def un kilomètre bu mu daw ci biir gaal gi wàccee benn Serigne nee na kon Serigne Bamba buy dellu Sénégal du fi fekk moroomam ndax kon ñi tudd di ko tudd duñ dellu siwaat waaye waxuma la géej gi waaye fii rek ci Sarsara ku fi tubaab bi bàyyee woon wana la fi ginnaaw dem ñibbi ñetti fan xiifa lay rey waxuma laak nag géej gi kon nag jaajëf Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasul jaajëf ba ki nga xam ne yéen topp kon dig daje yeneen pàkk yi ko yi nekk ci biir Sarsara insha taala fu mu ci a doon daañu fa teew taataan ko ngir sottiwaat ko askan wi ngeen di ci àll seen bokkum taale bi dongo bu ñu wax Moor Taala Kan dongal Touba dig daje ci kanam jaa ngeen jëf jërëjëfati Serigne